que feebar bi euh, juróom benn weer nii wala lu ko jege mu tëraloon ko ca France. waaw waaw effectivement parce que moom xam nga problème mu donc euh, genoux yi tànk yi moo doon moo moo doon metti mhm. donc affaire bi dem na ba aggravé wu donc il était même sur une chaise roulante. depuis vraiment plus de six mois donc euh, wax sax mënatu ko woon man je l'ai eu au téléphone ya y mhm. un peu moins de de d'un mois. Mhm. mais man j'ai pas terminé la conversation tellement que Pape Bouba xameetuma koon Mhm. donc euh, voilà feebar bi daal mënoon na ko daal waaw mënoon na ko quoi. Mhm. Mhm. Euh, na ko ci ban dëkk la la nekkoon ci France. bon je pense que Paris mais il faut me confirmer la ko ak euh, parce que man. c'est mon cousin yaayam ak sama yaay ñoo bokk yaay. Mhm. Ah, mais Alioune Diop bi nga xam ne nii ñoom ñaar ñoo bokk euh, ndey ak baay Alioune nag moom moo doon un peu son son son son manager quoi. Mhm. waaw bi mu nekkee ci activité dëgg. Mhm. donc Alioune moo ko jëloon en charge donc moo nekkoon moom moo koy signer contrat yi ainsi de suite donc xam naa ni ci kanam tuuti. dinaa leen jox euh, coordonnées Alioune ngeen woo ko comme ça moom mën na leen jox de plus en plus d'informations quoi. d'accord voilà d'accord d'accord baax na. Mhm. jërëjëf jërëjëf Pathé du ñàkk. merci dinañ diggante ak yow si kanam tuuti incha allah rabbi. jërëjëf jërëjëf jërëjëf euh, Pape Bouba euh, Diop kon di sénégalais bi njëkk dugal but si histoire coupe du monde ñëpp a ngi fàttaliku but ba mu dugal ca paas ba nu ko paasoon ca diggante Sénégal ak France doyen Abdoulaye. Mhm. ci taxawaay ba. ci bëgg réew ma ak ci am fulla ak am faydaam muy xabaar bu tiis bu dal ci kaw Sénégal. Mm-hmm. xabaar bu tiis kay. Mm-hmm. bu ñu fekk ci biir studio bi. ci biir studio waaw parce que euh, Pape Bouba xam nañ ko ci équipe nationale bu Sénégal. Mm-hmm. mais avant booba jaraaf d' abord. Euh, mu amoon complicité bu mag tamit ak Henri Camara. ñoom ñaar ay dañoo amoon atome crochu. autant au Jaraaf qu'en qu'en équipe nationale. Mhm. ñu jege woon lañu. Mhm. Pape Bouba ak Henri kamara xabaar bi ñu fekk fii léegi nag. Mhm. muy lu tiis. mais nangu rek. nangu rek parce que nag euh, xam nga am vitrine. am vitrine weesuwul euh, bis bu mel ni Sénégal retenir son suuf parce que da nga nekkoon ci vitrine u Sénégal. équipe nationale de football du Sénégal dafa di vitrine Sénégal waaw parce que amul lu gën a mën a fédérer football. Mhm. amul lu gën a mën a boole football. Mhm. amul lu gën a mën a jubale football. konte yii bu ñu la nee euh, euh, Sénégal dem ci coupe du monde de fraîche date. en 2002. Mhm. malal ak léegi c' est 18 ans. 18 ans c' est à la fois peu et beaucoup. mel na na barewul mais ci dundu bakkan. Mhm. bare na 18 ans. Mhm. ci dundu nation du encore dara parce que ba léegi mën nañ fi waxtaane lu lu lu lu fi jiboon il y a 100 ans. Mhm. mais Pape Bouba dafa demee ndaw. dafa deme ndaw 38 ans dafa deme trop ndaw. te li mu fi def mi ngi nii encore frais ci bët yi ak ci xel yi. waaw wax nga ko le premier du Sénégal. Mhm. en phase finale. de coupe du monde de coupe mhm. dafa di lu nga xam ne nii dafay marquer les esprits. Mhm. dafay marquer postérité bi. Euh, jaraaf dinañ ko jooy mais sénégalais yi ñoo leen di gën a jooyle. ce n'est pas que ce but. mais c'est aussi celui marqué contre l'Uruguay on s'en souvient. bi ñu mënee très tôt Uruguay euh, defe naa. 3-0 ci marché bu nga xam ne xaw nañ ko perdre les images von se bousculer. Mm moi la première fois que je l'ai approché c'était à Praia. Ben Cabral. Mhm. avions joué la finale. Mm -hmm. <coughs> que nous avions perdu contre le Cap-Vert. Mhm. Pa Bouba ma nga ca. Mhm. maa ngi ci rappelé ak ñoomin Isaba. Isaba waaw. ñoomin Isaba ma ne ko Pape. Euh, soo gëmee sa bopp. soo gëmee sa bopp. di nga def carrière. Mhm. soo gëmee sa bopp parce que am nga euh, kàttan bi. Mhm. pour dem très très loin. Euh, c'est tellement vrai que après dafa dem rapidement ailleurs ba am na ñu jotul am encore des images fraîches du passage de de Pape ba Diop. au Jaraaf voilà. Mhm. mais gis nañu loolu tout à l'heure maa ngi waxtaanee Jaraaf. Euh, ci victoire u démbam bi je disais que le, le malheur ne vient jamais seul. jamais seul parce que j'ouvrais par euh, l'entraîneur adjoint Siré Dia bi yaay ji gaañu démb. démb wallaay. Euh, non tey ci suba. tey ci suba la yam ñu koy denc léegi bu ñu julee tàkkusaan mhm. euh, di ko jëlee ca ca di ko jëlee ca marché di ko jëlee ca mosquée bi ci HLM 5 nous avons en ligne. Mhm. Malal le président de la fédération sénégalaise de football. Mhm. maître Augustin Senghor président bonsoir. bonsoir bonsoir. bonsoir monsieur le président léegi xanaa kay di la masawu ci tub ci euh, euh, ki lii ñu dab génnu àddina Pape Bouba Diop. waaw ñëw nag di ci taataan sa kàddu président. bare bare bare. oui xool tamit euh, euh, li mu jot a def pour footballu Sénégal. oui ak ni euh, ñu ko ràññeewoon ci àddina si ak coupe du monde deux mille deux. oui ak génération boobu nga xam ne ñoom ñoo marqué histoire du football wax nga dëgg wax nga dëgg. xanaa na askanu Sénégal yëpp ñoo ñàkk tey. Mhm. ñu ngi ñaan yàlla xare ko àjjana. amiin amiin di ko jaal mbokk mi. Mhm. mbokki deretam mi comme mbokki. sport mi. oui oui. di wax rek ne yal na ko yàlla xare àjjana. amiin président ñu fexe ñu fexe daal. woyam continuer même bu fekkee ne ci jëm ma nekkatu fi ak ñun. kon yéen a ngi noonu à Thiès ah. waaw ñu ngi nekk nii à Thiès parce que tey la finalu tournoi U20 ah, d' accord kon di la jàll ak sa ñi nga àndal ci fédération bi yëpp. waaw waaw waaw ko yeggee merci président Augustin Senghor euh, euh, merci Malal waaw. Euh, dama doon parce que bi bi ñu dugalee léegi Augustin. Mhm. maa ngi naan mais c'est vrai c'est euh, Souris qui a fait. 2002 2002 Malick Sy Souris. waaw Malick si Souris. Mhm. defe naa ni comme moo àndoon nag euh, Pape Bouba. Mhm. en 2002 ce serait aussi efficace. de l'appeler waaw waaw. ñu jéem am Malick si waaw Malick Sy Souris. parce que moom it ndeysaan maa ngi fàttaliku kàddoom. bi ñu jógee à la coupe du monde 2002 parce que xam nga Souris bu demee. Euh, euh, bu bokkee ci génération bi gagné la seule médaille d'or mm-hmm. la seule médaille d'or ci ci ci catégorie bu mag bi mm-hmm. jeu de l'amitié 1963 mm-hmm. nekk fi président fédération sénégalaise de football mu tombé Sénégal di dem à la coupe du monde Pape Bouba mi génn àddina tey pa Bouba Diop mi waaw mi génn àddina tey pa muy dem ci coupe du monde boobu Malick Soussoury moo doon chef de délégation moo koy yóbbu. moo koy yóbbu waaw kon tey jii euh, bu ñu tollee fii. ba dégg ba dégg l'actuel président de la fédération. Mm-hmm. mu yëkkati kàddu au nom de la fédération. dana ci baax aussi ñu taataan euh, kàddu Malick si Souris. Mm-hmm. mi nga xamee ni. Euh, mm-hmm. ñu jël le ministre des sports. jël le ministre des sports qui est en ligne. le temps ñu yeggali ba jot ci ni Malick Sy ñu ngi woote ci ginnaaw. waaw bu ñu leen jotee rek dinañ leen dinañ leen dugal. waaw ñu dugal ma monsieur le ministre Matar Ba. voilà waaw monsieur le ministre Matar. waaye naka waa waaye ça va très bien Ba ça va très bien. Euh, ah. Massa ñuy partagé ki yéen euh, émotion bi ci xabaar bi nga xamee ni daf ñu dab ah. léegi génnu àddina. Euh, Pape Bouba Diop de l' équipe du Sénégal de 2002 information bi fii la ñu fekk ci biir studio bi. Mm. Euh, monsieur le ministre noo nooy dundee instant yi nga xamee ni euh, d' abord dans la grande famille du Jaraaf métit la parce que Jaraaf yi ngi woon hier en Coupe d' Afrique ba gagné son match Pape Bouba dafa marqué sa génération. 2002 mi ngi nii 18 ans encore mu nekk épopée de de fraîche date euh, lan ngay yëg yow mi nga xamante ji yaay personne morale lu football bi au Sénégal. waaw dëgg la mais xam nga ay jullit lañu. wax nga dëgg euh, fàttali nga suñu gagné démb jaraaf gagné ko. Mm-hmm. mu doon mbégte tey ñu nekk ci naqar. wax nga dëgg Bataar. loolu mooy dund doomu aadama. Uh-huh. day am toujours de moments difficiles. waaye loolu lépp li ñu mën a def mooy. Uh-huh. puiser ci suñu ngëm. pour mun a faire face à ces moments de douleur Pape booba ñëpp ñoo koy fàttaliku ki détermination am ñu bëri nag bii bi la ñuy wax 2002 but boobu contre la France waaye fekk na moom li ko jiitu mooy son patriotisme détermination am ak euh, liggéey bi nga xam def na ko pour siggil réewam kon bu yàlla defee mu genn àdduna dañ koy ñaanal yàlla yàlla xare ko ajal yàlla yërëm ko Euh, defe naa ne li ñu ko war a defal ak bi nouvelle bi daanoo léegi mooy une minute de silence. Mhm. avant match bi di démarrer. mooy final donc tey c'est l'Afrique qui rend hommage à un homme nit ku bëgg réewam ku bëggoon football te mënoon ko. Mhm. li ñu def rek mooy ñu ñaan sénégalais yi ñu ñu ñaanal ko te ñu am ci njàngat. te loo gis day jeex. Mhm. Eh, bu ñu dara jaralati ñuy xëccoo wala ñuy waxante yenn yi te xam ne bés ku nekk bésam lay xaar. wax nga dëgg. Eh, di la gërëm nag doyen Abdoulaye parce que maa ngi lay déglu bu ma jógee dakaar ba fii nga nekk di fàttali. Eh, di jox xel yoo xamante ne defe naa ne jëriñ na ndaw ñi di ñu jëriñ ñun ñi nga xamante yàlla def na tey. président Macky Sall wóolu ñu ñu jiite wàllu tàggat yaram. jërëjëf Ba. Mm, euh, monsieur le ministre. jërëjëf Ba. Malal Junior. Malal comment tu vas. ça va alhamdulilah monsieur le mhm. ministre. alhamdulilah ñu ngi ñuy xabaar léegi nii euh, yéen a ngi woon ci tànku euh, rapatrier ko euh, wala ngeen fekk ko foofu ca France ga mu ne taxawu ko. yàlla mhm. def li gën ndax mën nañu xaar état bi.